Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. dugg ci biir néegu sëy nekkoon lu sacré ci bépp mbindeef waaye ñu seetlu ne ndaw tey fonkatuñu boobule mbir ba tax na sëy yu bari di tas ginnaaw bi ñu defee boobule jàngat nag jot nañoo laaj senegale yi ana lan moo ci seen xalaat. divorce yi moom lenn moom bokk na ci li koy indi mooy di may nit koo xamante ne gisul gisul ki gisul ki koy may loolu bokk na ci. ndax en général ñu si bëri bu ñu mayee da ngay ñëw rek ñu demal sa doomu nijaay diw wala demal sa doomu diw ñu may la boo demee xale bi mun naa bañ a bëgg forcé lay doon te xale lay doon bu dee ba màgg rek xàmmee mun naa ne divorcé tamit leen tamit am na si soxna yi mooy dañuy dañoo jital seen bët yi ci am-am ba pare tamit loolu bokk na ci ndax am-am moom nekkul liy sax waaw nekkul liy sax suñu borom moom de olof njaay dañ koy suñu borom mayewul daa kon nag booy dugg si nit. da dugg ci moom ngir ngir yàlla rek waaw waaye boo dugg ci moom ngir alal rek bis dana ñëw alal ji dem kon tamit da koy bàyyi tamit muy ak taara yam ñoom ñaara yam taara ak yooyu ñooy am kon am na loo xam ne tamit boo ci dugg rek dugg te yàlla tax te xam ne sëy tamit daa neexul nekkul lu neex kon nag te tamit olof Njaay day wax na ku yàgg ci teen baag dana ci fekk waaye mënoo dugg dugg rek ne day neex mënut a neex neex dana ci am naqari dana ci am ñàkk wax dëgg nit bu ngeen di ànd da ngeen ànd ci dëgg yonent bi saa salaam nee na waxulil eh, alxuraan ko wax sax waxulil xax wala kaana murran nit ki waxal dëgg donte dañ lay rey te dafa am solo nit bu ngeen di ànd ngeen di waxante dëgg parce que ànd boo gis dëgg lay lal mbëggee la nga fa parce que jigéen lu mu xam mooy li ngeen di eh, tàmbalee yéen ñaar parce que bu ngeen tàmbalee ci dëgg nga wax ko li nga am wax ka li nga mën wax ko fi nga dëgg xamal ko loolu yëpp Euh, du ngeen du ngeen du ngeen du ngeen am benn tolof tolof mais bu ngeen commencé nga commencé koo fen naan ko am naa lii am na la te or que li nga am ah tolluwul foofu foog foog jafe-jafe am parce que toujours ànd bu ngeen ànd rek dafa war a dafa war a nekk ci dëgg waaw parce que gis naa góor ñu bari dañuy euh, même chauffeur yi sax xam naa dinañ ma jéggal dañuy dañuy yor oto boo xam ne euh, moomuñu ko sax dañuy doon chauffeur wala demee dem ne ah maa moom oto bi wane loolu. te te te te moomuñu ko commencement bi mën nga wane lu bari bari bari loo xam ne ku jigéen ki day foog na yow yaa ko moom te moomoo ko nit nit la rek parce que tey ak ku mën a doon même xale sax soo ko yenee soo ko yenee ci ay fen bu màggee xam ne yow fenkat nga du la du la teg fen loo xamante ne dama yaakaar ne euh, xaj na leen li ci góor ñi la man leen li ci jigéen ñi la kon foofu man maanaam damay waxe ci ci ci ñaari côté yëpp maanaam dama yaakaar na leen li ci góor ñi la ah, te te te it góor ñi fi mu nekk ci ñoom mooy ah, ñi nga xam ne daanaka duñu ah, dama mën a wax daal xanaa duñu ay jullit daal ci gàttal ndax boo dee jullit jigéen moom dañ ko yërëm te yàlla rek tax ba tax koo ci yor war nga ko mën a teye te yàlla rek tax di ko defal di ko waxal waaw loolu moom mm, foofu moom mën naa cee wax ci ci góor ñi waaw ah bu dee ci wàllu jigéen ñi aussi ah jigéen yi maanaam da cee am ñoo xam ne doyluwuñu mm-hmm. waaw am na ñoo xam ne daanaka it maanaam bu neexee maanaam bu neexee dañu jàpp bu naqaree dañu bàyyi te yaakaar naa say moom loolu taxul mu jóg say li tax mu jóg mooy muñ muñal say doom nga xam ne loo loo amul ah daanaka maanaam loo amul ci sa maanaam ci sa euh, première mën nga ko am ci sa maanaam ci euh, njalbeen daal ci say doom waaw ma yaakaar ne daal fi mu ne nii daal buñ dundoon buñ dundoon ah, maanaam sariya maanaam ñu dundoon jullit daal xam naa yaramantar te yàlla rek tax kon boobaa lu bëri day am te du am. wala sëy yi xam nga sëy yi démb yi ak yu tey dañoo bokkul euh, boo gisee sëy yi bëri di tas léegi sëy daan na tas sax mais dafa léegi dafa ëpp te loolu lu koy waral mooy. li nga xam ne ñun noonu lañ euh, suñu maam yi xamoon wala suñu waajur yi xamoon ko euh, dañ doon xool mbokk wala doom bajjan wala doom ni jaay wala ki nga xam ne jégg na sa néegu ndey wala sa néegu baay euh, ñu yebal la fa pour nga jëlee fa xëj na peut-être bi nga xam bu demoon bi nga xam ne yéen ñaar am ngeen problème da ngeen di xool seen diggante waajur yooyu wala diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo leen boole mais léegi ana man ana yow la dox daje bi moo tax euh, problème yooyu peut-être wala wala yaan si ci affaire bi euh, bokk na ci tamit problème yi muy bëgg-bëgg adduna bi nga xam ne euh, ñun am-am bi wala man-man bi tolluwul noonu te bëgg-bëgg bi toll ëpp loolu sax moo waral xëy na peut-être dinay am ay jafe-jafe yi am côté boobu daal. ñenn ñi nag jàpp ne. ñi nga xam ne ñoo di goro yi ak njëkke yi rek bokk na ci li yàq sëy yi. goro yi ak njëkke yi man loolu man loolu ma maanaam li ma ciy wax mooy goro yi ak njëkke yi ñoom it ñoom dañoo war a xam ne maanaam ñoo ci njëkk rek te maanaam li nga njëkk moom a ah, ki ñëw moom da ko war a muñal te yàlla rek tax waaw muñal ko def ko comme sa doom xam nga léeg-léeg moom goro yi am ci ñoo xam ne maanaam erreur la ñuy def ndax erreur bi ñuy def mooy yow sa doom bi day sëy ni ko li koy digal. ak li nga koy wax sa goro gi ci kër gi doo ko ko digal doo ko ko wax te amaana sa goro gi ci kër gi nag en tout cas moo la fi mu ne daanaka moo la gën a amal solo kon fi mu ne nii daanaka li nga yéene sa doom bale say nga xam daanaka jam ko yéene moom nga war a moom nga war a yéene maanaam ki ci kër gi waaw loolu moom su fekkoon ne fi mu ne nii am na nuñ maanaam fi mu ne ñu bëri loolu mooy seen problème yow sa doom bi da ko jàppee am loo ko yéene am loo koy waxal te sa jëkkër bu ñëwee ngay am nooy fuñ fuñ loolu moom d'accord ma ci moom non man na waar waaye bu waaye bu ko defee it maanaam jigéen gi it na xam ne moom moo wut rek bu ko defee it ki nga xam ne mooy gu jigéen gi maanaam ki nga xam ne moo sëy si man am yaakaar ne moom moo war a toog mu ñel jëkkëram te ndigalam lu mu ko ne defal mu defal wala lu mu ko ne tere sax moom sax moom war na mën a dem sax moom ci boppam ndax jigéen moom daanaka moom jigéen ak góor moom daanaka bu ñu àndee keneen ki mën na jàppale keneen ki ki keneen ki mën na jàppale waaw foofu moom euh, man naa ne foofu am na lu am la euh, mais warul woon a mën a am euh, doole ji mu am parce que ki nga xam ne moom mooy su goro dafa sëy si ci biir kër gi ñu teye ko fa teye bu war bu mu am ki nga xam ni dafa wuuti keneen indi ko mm-hmm. kon foofu. ku góor ki war na am matu ni euh, toog ak euh, ki nga xam ni mooy yaayam parce que euh, souvent yaay yi ñooy def loolu mais goro yu góor yi amuñ jot boobu parfois Euh, war na mën a toog ak yaayam waxtaan ak moom bu fekkee ne man na muñ mu muñ bu fekkee ne mënul muñ tamitam ñu xool beneen solution boo xam ne ci moom mooy gën a rafet ñu tas wala ñu xaajaloo wala ñu am ci yenn coow yoo xam ne ni ni dañ koy yëg parce que loo gis waxtaan la te lépp lu ñu waxtaanee rek mën nañ koo defaree ci biir néeg bi mm, am naa ci jàngat parce que goro gu ne même bu la euh, euh, bundu ci liñ koy waxee nit boo ñëwee ci kër sa goro da ko war a def comme sa yaay. commencement sëy dinañ la sonal dëgg la te it nag lu si lu si ëpp wuj euh, wujj pecc ga yi ñuy wax moo koy moo koy indi man nga nekk ak sa goro sa goro du la def dara mais ñoom ñooy euh, jàppo goro yi di tappaas ak yi demee noonu ba ñu sonal la mais danga koy jàppee nii sa wéyjur soo ko jàppee ni sa wéyjur rek euh, benn jafe-jafe du ci am. waaye divorce yi moom pour man man li koy gën a indi mooy maye ñi nga xamante ne bëggante wuñ dañoo war a bàyyi. muy jigéen muy góor ba mu gis ki nga xam ne bëgg na ko ñu may ko ko boobaa suñu borom mën naa def sëy ba mën a barkeel te sëy ba mën a yàgg waaye bu ñu jëlee ñi nga xamante ne dañuy nekk xale comme ni ñu koy doon wax takkal la sagar nga nekkee xale bàyyi bu nekk nekk xale ay ay dix ans nga xam ne xamagul dara ay neuf ans ñu mayee la bëgg ba dem am 14 ans ñu bëgg la yóbbu nga sëyi boo demee sëyi fa ngay sëyi tamit kooku sa borom kër benn yoon benn yoon nga koy gis te mën naa mën naa amaan tamit doo ko gis mën naam sax doo ko gis ji moom jamono ji nekk mu ni moom mbëggeel moo fi moo moo fi fës kon nag dañ bàyyi xale ñu bëggante ba kii yàlla dogal leen ñu ànd ak moom ñu sëy moo gën defa moo gën ngay takk tey suba mu tas waaye itam ñenn ñi jàpp ne rek li nga xam ne moo di maraboutage bi tas na sëy yu bëri bëri na lu muy am ci néegu sëy néegu sëy bu galaaj defar moo koy tas saay su jeexee dafay tas euh, beneen bi mooy euh, di galaaju nit pour mu nob la jaru ko c'est parce que nit ku nekk sa dépensement yi ngay def pour ñu la bu la doyut yeneen i galaaj waru cee mën a dugg pour nit ki nob la parce que euh, galaaj moom euh, sëy bu mu fas dina ko fecci wala tamit yi nga xamante ne bëri na ci bëri na mooy jàpp euh, gis jigéen wala dara nga bëgg ko dem si sëriñ mu jàppal loo ko nga yeew bu mu dëgër yebbu sa kër alaakulaalin bu loolu dëñee rek day dem yoonam wala caag nga teg ko ci lu leer muy ngeen bëggante te yàlla tax nga xam ne bu ñëwee sa kër sëy bu mu fa am sëy bu barkeel la doon nga am ci njabooti barkeel loolu mooy loolu mooy àdduna waaye bu ñuy def di naxasudul noonu rek amaana bu ñu demee ba rek mën naa kii ñi nag gëmuñu yàlla waaw looloo waral jafe-jafe yeeg yëpp sëriñ tubeeg yooyu yëpp ñàkk gëm yàlla waaye nit su euh, see ngir yàlla rek gëm yàlla lépp loo xam ne euh, bëgg na ko si borom këram mu ñaan ko ci suñu borom suñu borom da koy defar parce que yàlla moom boroom kattan la te mën lu ne waaw. tant que yow yaa ngi wéetoog jàpp sax nit ma mënu laa liggéey mais nag ñàkk yéen euh, ñu si bari soxna yi dañ dul dañ dul farataal jaamu yàlla te yàlla dafa mat a farataal. toujours buñ la fekkee ci jàpp ngay maanaam ngay solu tamit lu yiw di muur sa bopp kenn mënu liggéey ba jàpp la. loolu li ma ci mën a wax yàlla dama wax ne ad'uuni astajib lakum ma ne mu ne ñaan leen ma ma may leen nit nag bu leen yàlla boolee maanaam sañ nga ñaanlu bu dara bu dara du yàq seen diggante xam nga lan moo bon maanaam yow moom def lu loo xamante ni yow rek yaay nekk ci kër loolu moom d'accord ma ci moom bu dee jigéen bi. maanaam boobaa moom mën nga ñaanlu loo xamante ne ne ëllëg si biir kenn du mën a soo kenn kenn kenn du mën a dox seen diggante waaw loolu moom ah bu dee ci wàllu sëriñ mën naa waxee ci côté boobu foofu it ah kay foofu sax am na fu ma ci d'accord ndax su fekkee ne kooku dala bëgg te yàlla rek tax te waajur yi nanguwuñu ah amaana mën nga ñaanlu ñaanlu daal moom yàllaa ko wax waaw waaye daal moom moom ñaan bi sax moom mën nga ñaanlu rek waaw foofu moom foofu moom yàlla moom wax na na ngeen ñaanlu waaw ndax soxna su fekkee daf la maanaam da ngeen bëggante te ay waajuram nanguwuñu ah boobaa fim mu ne nii daanaka mën nga ñaan lu tax ñu nangu waaw waaye it maanaam li ci bon mooy def lu yàlla bëggut waaw loolu daal moo ci ay moom. jigéen ñu bari jàpp ne ñoom itam waruñoo wujje benn yoon ba tax na ñuy tas seeni sëy. waaw ñooñu moom damay wax ne dañoo dañoo dañoo jàngul alxuraan waaw wala dañoo gëmul yàlla ndax suñu borom suñu borom dañu dañu takk ñeent suñu borom la bu ma gisee góor benn jabar moom dama dama lay ree sax ndax soxna yi soxna yi macha allah bëri nañ fi kon dañoo takk ba ñeent ñi nga xam ne dañuy dañu naan bu mu amee benn soxna bu ñu amee wujju rek ba dem daa fekk ne ñoom xanaa moom sëy te yàlla tax indiwu leen fa bu leen sëy yàlla tax indiwu leen foofu bu ñu doon indi ñeent sax moom na nañu na nañu mën a nañu nañu mën a gérer rek nekk ci la ñu nekk bu ñu demee ba seen jëkkër deful lu yoon nag ñu doog a am lu ñuy def waaye indi la wujju takkal naa la wujju rek nga bàyyi wala nga indi asib di ay duule nag yooy yooyu moom dama xaw a doy waar <laughs> yooyu moom dama ñu bàyyi ko jox soo nañ ko bàyyi te xam ne yaatal daal comme euh, lu ñu waan nan aaw moom mooy yaay bu nekkee si kër mooy yaatal ba keneen ku ñëw mën fa mën a mën fa mën a nekk waaye boo xatalee rek ku ñëw du fa toog moom loo gis mu def ñaar la ci def ah yalla loo gis mu def ñaar la ci def gisa sa ñaari bot yi gisal sa ñaari kii sa ñaari tànk yi kon nag moom yàlla moom moo wax loolu ci maanaam yàllaa ko wax jigéen moom war na mën a tàkk ndax astafurlah góor moom war na mën a tàkk bañ ba bu ñaar ba ci ñett ba ci ñeenti sax la la lislaam wax waaw ndax bu dee ñun Baay Faal yi moom ñun moom loolu moom amul problème ñun moom dañuy tàkk rek soxna yi moom dañu dañ di yore te yàlla rek ndax. waaw loolu ñàkk gëm yàlla la euh, c'est parce que foog naa ni que la dem wuti ba indi la mën na dem wuti waat keneen ba tax na bu fekkee ne gëm na yàlla dëgg-dëgg dina toog reste sëyam parce que dafay xam ni wërsëg du benn. dafa bokk wërsëg la bokk néegu say bokk wërsëg la man na reste rek lu mu fa xaaroon ba leneen ñëw ba fa xaaraatee leneen mën na fa am xiiwal gu bëree bëri waaw maraw taas mooy ñàkk gëm yàlla rek parce que toujours dama ne nit ñi euh, ñu bëri dañ ne dañ yaakaar dañ gëm yàlla xam nañ ne yàlla am na waaye gëmuñu ko parce que gis nañ asamaan gis suuf waaye ñàkk gëm yàlla mooy waral leneen yàlla da nga koy gëm wóolu ko parce que yonent bi saa sallam ne ne utlubul xawaayija bi hizzati nafsi fa innal umura tajrihi bil maqadiri mu ne utlubul xawaayija bi hizzati nafsi mu ne mbir yi ngeen di lijjanti na ngeen ko lijjanti ngir seen tarangal bakkan parce que fa innal umura tajrihi bil maqadiri mbir ni ko suñu borom tëree rek noonu rek lay demee. beneen yoon ci yeneen thème. si vous la pouce bleue pour